yaa xayra muxnil xadaa ajil bila kulla bin yaa man bi kawnika la faaratu balwaaya yaa xayra muxnil xadaa wal taksi bil luñ ba an abli yàlla ya ayra mu'min hada تواب لقبر ذنوبي ومقوم لا لا لا عني وكل يا في دنيا وأورا لا لا لا بكونك لا قرأت الوقت بكونك الوائد الخار رد لي يا رب اللي داولت خالد فيك بذرا كل فين وترفع ما خسيت فلنطائف كما يا لك سما والراد والأواهما خن الأذى كلا ودول المزايا شرف يا من حنك فارت بروايا لك سلاتين درا والملوك كساءت ماء أمني ردوا قبل لويا Bye. ومن ومن مخالي وأخذ عندما ثم ما ثم ما ومن مخالي وأخذ عندما أو أبلي ثم مدرت من أمل من ومن مخالي وأخذ عندما أبلي ثم ما سمما ومن مغاني وأخذل إلا مغنى أو لك البرايا جميعا والبيلا فقل لي يا إلهي يا بداري وتبايا لك البرايا جميعا والبلاد فقل لي يا إلهي يا بداري وتبايا أو لك البرايا جميعا والبيلا فقل لي يا إلهي يا بدعري وتوبايا عن والبلاد وبن يا إلهي يا بداري وتوبا أو أنصر جنابي وأزني لآل أمور بما تعيب وآزن فيك تخوايا أنصر جنابي وأزني لآل بما تحب وأعذبك تقوايا أو خليت بالوائد الخلايا وكان لي ونافى فقري وبلوايا فأري أن زمري لو تواجهت فكرا أبدا وأرجي جهميزا ولا سكرا له أبانا وأرتجي منه ما لم يغفر سروايا أو بكونك الخادر الخاري مختديرا أرجو لا بما أهوى بمن جايا بكونك الخادر خاري مختديرا أرجو لا فاق مرجانا ألا يقاربني بدواني هذه وفاق مرجانا أنا ويت إرداء إرداء من قد فراء بإلا أهلي ونغنايا أويت إرداء إرداء سلوء بدن سراء لي وصول أنت الخبير الذي أرجو بقدرتك أوس زيادتي سدني بعد أصنايا أنت الخبير الذي أرجو أرجو بقدرتك أوس زيادتي سدني بعد أصنايا أو أنت الخبير الذي أرجو بقدرتك أوس زيادتي سدني بعد أصنايا أرجو أرجو أرجو أرجو أرجو سجني بعد غزلايا أنا بعد ما كان إني لديك قد قديد يا وأخرى لدي ترقى بين خبايا برمدينة كباخ دنيا دوران ترى بروح خطابا نبت مكانا يمضي مدينة كبا دنيا أخرى ترى برغبايا نبت مكانا إني بك دنيا وأخرى الذي درنا بنخبايا نبت مكانا برمدينة كبا دنيا أخرى bay laa tabaax nana saytaane bi ni Tuuba bantam dootu na alxuraan mbéegum Seex Bamba bay laa tabaax kin nana na bay laa tabaax kin na alxuraan mbéegum Seex Bamba lu ko war sax duutu fi jaar saral na alxuraan ay laata baax gëna na saytaane bin tuubaata kaw dootu fi jaar feeral na alxuraan mbéegum Seex Bamba yàlla bada lu ko war sax duutu fi jaar saral na alxuraan nu ngi lay ñaan ndimbal yëmane sa irat xadim seen saali da koy ñaan ba abadan yaay borom Tuuba ndimbal jalmane xaalira bay saali nangi la koy ñaan ba abadan bay saal fan na xel koom ndimbal yërmane saira baatin seen saali nangi la koy ñaan ba abadan yaay borom Tuuba ndimbal bay saal yaay nag batin seen saaliw ñu la koy ñaan ba abadan yaay borom Touba mbooloo mi ku yaakaar sëñ Touba jóg taxate ko màggal ko na ñëpp jug taxate ko màggal sëñ Touba ku ko def yàlla boo faatu ren jug leen taxate ko màggal sëñ Bamba dem mënum bee baax ndimbal yërmande saa irak batin seen saaliw ñu la koy ñaan ba abadan yaay borom Touba ñu la ku fa am nga ay boom ndimbal yërmande baa'irat batin seen saani ba dina koy ñaan ba abadan yaay borom Tuuba jëf jël ah bay saan bay saan sëriñ abi booba ndimbal yërmande saa'irat batin seen saani ba dina koy ñaan ba abadan yaay borom Tuuba Cheikh Saliou ma ngi la koy ñaan ba abada yaay borom Touba ndimbal ndimbale sayir ak baatin Cheikh Saliou ma ngi la koy ñaan ba abada yaay borom Touba ah ah ma ngi la koy ñaan ba abada borom Touba ahadil mukadim taatin mukhalladatin wa tubiha arika ya rabbi khuluba ya من مخلصة قدوم غارك يا وجبي سجلي إذا أكون به عبدا إذا وخل أنك أنبغيا أدري الله sinsaani yu baakar ku def lii ñaanal la doo doo joote yàlla waa mbooloo mi gi soppi Serigne Saliou jugal tax ci nga ñu màggal ko ku ko def yàlla bopp la def lii سبحان الله لو تهجو تي الله كم تفلي نعم الله لو تهجو تي الله أمين سين سالي وبادر كم تفلي نعم الله لو تهجو تي الله كم صبل سين سالي وملني سالو خدي كم تفلي نعم الله لو تهجو تي الله أكبر sëñ Saliou aha sëñ Saliou Badara kum def ni ñaanal la dootoo joo te yàlla waaw aka baax sëñ Saliou Badara kum def ni ñaanal la dootoo joo te yàlla waaw sëñ Saliou kum def ni ñaanal la dootoo joo te yàlla waaw sëñ Saliou kum def ni ñaanal la dootoo joo te yàlla waaw ku ma soppal si taaliw ci kum def li ñaanal la dootoo joote yàlla aka baax sëñ Saliou kum def la dootoo joote ni ñaanal la dootoo joote yàlla sëñ Saliou Gueye borom Badar Gueye kum def borom Badar Gueye kum def li ñaanal la sama waaja Saliou Gueye borom Batal Ngalla ku mu dimbali ñaanal la dootoo joote yàlla ku mu la dootoo joote yàlla borom Ngalla borom Ngalla borom Ngalla Sëñ Saliou ku mu dimbali ñaanal la la dootoo def li ñaanal la si Saliou Gueye borom Badar Gueye kum def li ñaanal la dooto dooto yow la si Saliou Gueye borom Badar Gueye kum def li ñaanal la dooto sëñ Saliou Gueye borom Badar Gueye kum def li ñaanu Gueye la dootoo jotee yàlla ma ne mbooloo mi ku gën a bëgg Serigne Saliou Gueye jugal taxaw ca ko ñu màggal ko jar na ko ku fi gën a bëgg Serigne Saliou Gueye la jugal taxaw ca ko màggal ko ku ko def di nga fekk doon jar sëñ Saliou Gueye borom Badar Gueye la dootoo jotee yàlla sëñ Sëñ Saliou Gueye li ñaanal la dootoo joote yàlla Sëñ Saliou Gueye sama Badar Gueye la dootoo joote yàlla Sëñ Saliou Gueye sama li ñaanal la dootoo joote yàlla Sëñ Saliou Gueye borom Badar Gueye e kum def li ñaanal la bay sëriñ sama borom ba dargay kum jëf li ñaanal la dootoo ñaata la dootoo ñaata bay sëriñ sama borom ba dargay kum jëf ñaanal la dootoo dootoo ñaata yàlla ku ma soppal sëñ Saaliw nel nii sa loxo ci kum def li ñaanal la dootoo ñaate yàlla wa sëñ Saaliw sama borom badar gay kum def li ñaanal la dootoo ñaate yàlla wa sëñ Saaliw sama borom badar gay kum def li ñaanal la dootoo ñaate yàlla wa sëñ Saaliw sama borom badar gay kum def li ñaanal la dootoo ñaate yàlla jàng waay sëñ Saliou sama borom Badar Gueye gu def li ñaanal la dootoo ñoote yàlla wa ak baax borom Badar Gueye gu def li ñaanal la dootoo ñoote yàlla wa sëñ Saliou sama borom Badar Gueye gu def li ñaanal la dootoo ñoote yàlla wa sëñ Saliou sama borom Badar Gueye gu def li ñaanal la dootoo ñoote yàlla wa

yaakaar ci moom muy nit ku baax di ku yiw di koo xam ne ab jaxasoon bariwut waaye ku jaxasoon moom xam ne nit ku baax la suñ borom dogal bis bi heure bu jubsee rek mu daan bëgg ma ci ñëw ba yàlla dogal ko daaw dogalaat ko ren ren mu ne ma xoolal matériel yi nga bëgg jàngee ma jël ko nga ànd ak moom ñëw fii jàngal si ma ne ma man kase rek bu ma toogee nga jàngal mu baax na te noonu mu ko waxee woon noonu la ko defoon ndax bi ñuy tàmbali fii maanaam moom kaset fi nekkoon waaye yàlla dogal sama waajur bu baax bi nga xam ne bàyyi sëriñ jaxate léegi bi ma daal di wàcc ci oto bi la ma nuyu daal ne sëriñ Saliou moom am njàngam damaa neex buy tàmbalee jàng woo ko mu ñëw bi ko sëriñ Saliou wooyee mu ñëw sax ci laa soppiwaat njàng mi waaw daal koy gën a kii ndax bëgguma topp gone yi ci biti di leen jàngal bàyyi ko moom mi toog ndax kilifa la mu koy dégg muy neex ci xolam bi muy ñaan muy dal moom moom moom beneen affaire la bu ko defee dama koy daal di bokkam ci biti moo tax ba mu ñëwee sax yu bari yu ma daan def sax defu ko ngir bañ jotaay bi xaw a déborder ndax am na yooyu bu ma ko defee ci jotaay bi ngay kilifa toog Sëñ Saaliw toog dana jaxasoo soxna yi danañ jaayu ànd ak góor yàlla yi te loolu boobaa day gën a garaaw ndax yooyu léeg-léeg bu ma duggee ci yeneen jotaay dama ko fay def waaye nag olof Njaay nee na uude nu mu la gisee rek noonu lay ëwalee te tubéy bu jotul ñoddee koy xotti tubéy bu jotut di da koy xotti wallahi ñoom nii nu mel nii forcé wuñ ci dara nii lañ mel naturellement xaw bu nit di forcé dara du yàgg waaye bi ma fi yendoo ba tey nii mu toggee noonu la toggee ku ñëw mat ko kilifa mu wàcc photo bi toog ci suuf moo tax maa ngi lay ñaanal jàmm Baye Serigne ñu ngi sàkku ci yow ñaan bu baax a baax a baax a baax tey ñaan yàlla dinaa la rajasal nag waaye na nga toog ba ma pare bu ma jógee fii mën naa yokk rek te mucc man bu ma muccee rek amul problème mën naa mucc rek ndax fii mbir mi toll mucc rek ay baax mbir mi fi mu toll nii mucc rek rek rek ay baax ndax wax naa ko bërki démb dëkk bu ma doon jàng fii ci Mbawar am ca réunion ba ma waxaale woon ak ñoom ba mu leer ba noppi li tax may leeral lii sax damay bëgg a wane kàttanu borom Tuubaa rek am ku ne ci réunion ba ne nañ woo diw ak diw ba noppi ne njaase nanu may ndax moom xale la waaye nan woo diw ak diw ba noppi ñooñu ñooy baayam ci jàng ñoo ko mag ma jot ci audio yi waa dëkk ba woo ma ne ma nee nañ magi magi dëkk bi nee nañ nga may leen ñu xool say baay ba noppi may leen jàngatuma nan dem xooli ñooñu man jàngatuma buñ ma woo jàngatuma fekk boobu gàmm gi ñu bari ñu may woo bii dee nangu rek bii bañ ma ne leen jàngatuma léegi bi ma waxee jàngatuma ñu xam ne ñoom sax ñu ñuy wuti mënuñu leen am ci suuru gàmm ñii mën nañ ma seede ñu woo ma ne léegi dañoo bëgg nga ñëw jàngal ñu la ma leen waxoon ma yokkaat ko pilis ko ñu ne ma d'accord naan biñ demee ca gàmm ga suñu borom dogal gàmm gi day def day faral di am li may wax si internet da koy jël day faral di am xalifa bu nekk yaa koy aaye fu benn xalifa bu jugee mu dem ca beneen dëkk léegi muy première édition ci dëkk booba muy Baye Modou Bey ci jama Bey ci Mbawar biñ jàngee ba asamaaw set waa ji daal di jël micro bi daal na gàmm gu mel nii mosu fee am te dañoo bëgg at mu jot nga ñu ko jàngal ma jël micro bi ne ko Sëñ Tuubaa amul benn Fallou Ndiaye bu fi nekk di jàng jëmale fu kenn xamul amul benn Xaadim Gueye bu fi nekk di jàng rek dem amul benn Ablaye sekk bu fi nekk di jàng amul benn Cheikh Jombaay mbaa benn Abdoulaye Diouf par la force borom Tuubaa dina indi xale yoo xam ne dañuy mën a jàng di jàng nu ñu mën a dégg force force loolu force te boo xoolee jamono yi sax Sëñ Tuubaa mu commencé def yooyu ndànk-ndànk ña yàlla nañ ci bokk nag bàyyi sëriñ nanga nu ñaanal nu bokk ci li ci tax a bokk nag mooy mucc nanga nu ñaanal nu mucc bu baax a baax a baax ndax lu dul loolu rek dana kéemaane ndax man dama koy wax ñi ma àndal jàng xasida rek laay def foofu ma lu ma ndax li ma nekk ñor na ma lool may ñaan ci borom Tuubaa yàlla suñu borom guddal seen fan di nuyu sëñ Bada mii nga xam ne taalibeeb Seex Ibra Fall la waaye sëñ Ablaye Samb di ndaanaan bu mag maa ngi bu baax mu ànd ak sëriñ Baye Seex ñii dañoo am maanaa lool li ñuy li ñuy wax lu baax wax lu baax duñ dem fu ñu leen wowut mukk beneen bi ci topp mooy kenn du leen yàpp bu ñuy ñëw ci yow daañ sol lu rafet te bu ñu la tiimee tàggale say maam nga xam ne am nañu xam-xam man dama bëgg géwal buy wax xam-xam te ñii ku ci jëloon micro bi di wax rek dana tudd ba tudd ci yow loo xam ne danga doon jàpp ne xamu ko kon yàlla yàlla guddal seen fan yàlla bu leen am stress ndax bu ngeen amee stress du ngeen am inspiration bu ngeen mën a xamee génn ñi ngeen di tagg stress baaxul ci doomu aadama léegi nag dinaa rajasal sëñ bi waaye bala ma ko rajasal damaa yéene ñëpp njëggal xasida gi may jàng moom lay jàng rek rajasal sëñ bi bu ko defee ñu def ñaan ba déwén ak jàmm maa ngi ñaan képp koo xam ne rek am nga aajo lu mu rëy rek fas ko ci ndax xasida gii ba ko sëriñ bi di bind xam naa ne ñun taalibe yi rek a taxoon ku sa soxla rek yal sa borom